waaw oustaz nu may mooy dañuy euh, dañuy gis si weeru koor bu ñu nee euh, ñaar fukki fan ci weeru koor xel yëpp tey dem ci Serigne Touba ak Cheikh Ibra tey ñoo laajte la nga ñu mën a wax tey ci Cheikh Ibra mooy pour ñu bëgg a euh, roy ci moom. xam nga maam Cheikh Ibra mas nañ ma ko laaj ci Saint-Valentin ma ne leen bu dee ak roy doyloo rek gëmm bañ a xool kenn mooy Cheikh Ibra. patuus la def ci xaadimu rasul xam nga taalibe bu naafeq muy bëgg xool fii xool fële sëñ Abdou Aziz Al Amine daf ma waxoon ni ma bul yor jikkoy gélem ma ne ko papa loolu mu ne ma gélem buy lekk ci garab gi xelam a ngi ca garab gi xaadimu rasul dafa am bés mu ne dama am laaj bu may laaj ñu ne ko mbàkke bul laaj yow loo laaj kenn du la ko tontu mu ne yéen xam ngeen tontu bi ñu ne ko lan la mu ne menn xel laay laaj olof damaa dégg mu koy tudd luy menn xel mag ñi profité naan ko mooy benn bët benn bët xam nga benn bët la ñuy tuddee menn xel waaw ah, benn bët ñu ne ko mooy benn bët mu ne déedéet Cheikh Ibrahima mooy menn xel mu ne ñëw ne ko mbàkke lu xew da daan wax ne garde corps day dànd koor lu jëm si ca corps ba balaa yegg nga njëkkanti ko moom. mais garde corps du sosu koor kon dañ koy boole koor ba kuur ne ko mbàkke xew mu ne ko ñii dañuy laaj mel ne xel lan la ma ne leen mooy yow ñu ne ko mbàkke lu tax mu ne Cheikh Ibrahima mel ne xel la ko yàlla jox xel mi ko jox bamba dong ci ne kenn newu ci looloy mel na xel xelum Cheikh Ibrahima kenn nekku ci ko du xaadima rasul looloy ànd bu honnête xanaa xamoo kër miit ñu dem ma ànd ak moom ngan koor ñu dem si ñu tegal ñu ñetti palaat ñu bokk ma ak moom palaat yi rang ma lekk ba mu yàgg ma toxu ca beneen palaat di xool lu mu saf su Babacar yeewoo na ma ba kuy bàyyi nit ci ndab lu ngeen bokk di seet bële lu mu saf boo gisee ku ko ëppale toxu ca dëgg la wala dëgg Cheikh Ibrahima nii rek tànki neen tànki neen rek talu la peñe karawam ndax ndigalu xaadimu rasul talu la sol daal ndax xaadimu rasul guddeem bëccëgam subaam ngoonam kenn rek la ci def ci xelam muy xaadimu rasul loolu la ko yàlla fee tant boo dem waxtaanee sëñ Bàmba dara du xew boo ne maam Cheikh bi nga dégg ko ne akasa jóg yuuxu boo doolee ñu tas tant ba bu dëgguwuloon woon ci xaadimu rasul du am loolu mukk ci àdduna dem naa benn tànt palmew di fa conférence ma tudd sëriñ Touba bi muy jëm ci géej gi maam Cheikh Ibra bi muy waaj ak ni mu taxawee sëñ Touba di tàggu noonu ni mu takkee ndigir ak tànk neen yi mu def ak ni muy waaxoo rek di ko wër mu ne ko Ibra dalal maa ngi ñëwaat ma toog toog rek gis tànt bi nekk buddi nañ ko buddi ca kaw laa wax aj ko Seydina Omar dem sëtu góor gi Alaaji Amad dem ca Sokone la ñooy ànd mu dóor ma kaan bi ma geesu ko mu ne ma xoolal tànt bi sa kaw la jëm de ma ne ko xoolal boor bi chauffeur bi ma àndal nag ko yeewu la mu arrière oto bu ci bunt fiil bi may fii waxtaanee dafa gudd may waaxu rek ndànk di dem ndànk di dem ndànk yuux yi tànt bi kuur yi ma saraax sarax ci oto ba ñu ne fes tànt bale nga lañ te tudd naa fa sëñ Tuubaa junni yoon mais bi ma tuddee taalibeem soppeem ki ko gëm muy muy maam Cheikh Ibrahima Fall làmp doy na neex-neex doy na ndam doy na sak doy na tiitar itam mooy ba ñuy tabax jumaa yi Tuubaa jumaa yàlla moom ko sëriñ Faliilu Mbàkke génn xool sooroori jumaay yàlla ji mu xool ba ca gën a gudd mu ne tuddee naa ko Cheikh Ibra Fall Lamp loolu doy na ci ki nga may laaj tarbiye dëgg mooy Cheikh Ibra roy dëgg mooy Cheikh Ibra taalibe dëgg mooy Cheikh Ibra bëgg dëgg mooy Cheikh Ibra bañ a boole kenn mooy Cheikh Ibra ji nga jigéen ju ko royoon ci sab sëy daa am doom ju baax gëmm ci sa jëkkër rek taalibe bu ko bu ko royoon ci sab sëriñ dana baax gëmm ci sa sëriñ rek doo dégg Cheikh Ibra ci daara daara daara boo fa leen koy seen mu buuf rek of koor noppam yëpp a ngi ci Xaadimu Rasuul moo tax taalib mi mel ni ñu mel bu euh, defe naa seriñ Cheikh Jëmb Fall la maam Cheikh Jëmb Fall suma xarit la Serigne Moustapha Fall di rakkam moom la yebaloon sama gàmmu Cees moo ca ñëwoon buy yóbbu àddiya gaalu xaalis la ñu yóbbu waaye yow maa ko seetaan gaalu weñ gu fees xaalis te ca maam Cheikh Ibra Fall lañ ko jël moo tax boo ne xilaafa bàmba ne xilaafa faal rek boo ne mbàkke ne faal rek waaw dafa am bis may fàttaliku boobu maa nga buleel cheikh Abdoul Ahad Mbàkke radiyallaahu anhu yebal murid yi Baay Faal yëpp ne nañ dem buleel deqi ji ko xam nga samedi dañ fay fanaan a gàmm dimanche ji ndéqi pour nit ñi fanaan si mën a teel a dem tool ci guddi gi la Baay Faal yi ñëw ci guddi gi deqi tool yi Serigne Cheikh yónnee ci ñom ne leen ngi bàyyi leen fi bu njaboot gi ñu barkeelu ci ñu ne loolu amul ndigal jëfe dëkk rek loolu la murid def koo koy maam Ibrahima Fall.